Merlin nekk Ndar. Jean-Louis Moutet nekk gouverneur AOF. léegi nag sëñ Touba. li jamono xaw a soppiku ci yu bari moo tax. jëmmi ña jaxase loola wane ne Samba Laobé Penda jébbalu na sëñ Touba. am na ab en. waaye sëñ Touba moom ba tàmmeel Samba Laobé Penda jébbaloo ci moom nopp sàkku ci moom dénk. la ko sëñ bi dénk ci ngay xam ne adduna tax koo jóg. dénk ko na ko na nga jubal dénk ko na ko na nga dimbale nit ñi te xam ne lii la adduna jox bis day ñëw mu jógee ci yow dem ci keneen ndax adduna ànd ak yow di xeex nit ba jox la ko ba ëllëgee adduna ànd ak ñeneen xeex la ba jële ko fi yow na ko nag képp koo xam ne yaa ngi tooñ mhm. yaa kuy tooñ da nga ko rëccu mhm. te ku dëng mooy alku mhm. loolu sëñ Tuubaa ko wax nga xam ne man zalima nadima wa man jaara baara loolu Sëñ Tuubaa wax na ko ci biir lettre léegi nag Sëñ Tuubaa ñëw na Mbàkke Bari ci la 29 mars mois de mai damel samelaw bu pende lu ci moom mais bi mu wàccee Mbàkke Bari lu xew te ba muy dem installation bi mu def ci lay wane nii kii jàmm ko tax a jóg ndax Sëñ Bachiru Mbàkke nee na booba mbooloo mi ak dëlëf-dëlëf ji ak wut ci Serigne Touba gi tax na sëñ bi di wut béréb bu wéet bu mën a nekk ni mu installé ci nga koy xam sëñ Mbàkke sëñ daam Abdourahmane Lo maam Thierno mu yóbbaale leen ngir daaray alxuraan daaray xam-xam yi waaye li tàmbalee bi sëñ bi ñëwee mars teewul coow leeg yëngutu yi di bari waaye sañ bi mu am na lu mu waaj am na lu ko tax a jóg ba demee ba mois de juillet ci la convocation boobu ñëwoon fekk si Sëriñ Tuuba te ñëwut sabotage yooyu ma la wax keroog bu ñuy convoqué sëñ bi jotu ci li ma doon wax keroog ci émission bi rek wala ne mhm. ginnaaw ñooña léegi seen njaboot tabbi nañ ci biir yëf yi mhm. jëruñoo tudd ñëpp la ñu waaye ñooñu ñoo denc lettre boobu ba tax lettre Serigne Touba boobu ñëwut mhm. li ngay xamee ne Serigne Touba waajal na tukkiit mhm. keroog bi muy jógee bi Serigne Bousso bi génne adduna mhm. Serigne Touba jógee Mbacké Bari ñëw Mbacké Bawal jaal si Serigne Bousso bi moo dajeeg jamono gafeeñu jamono Serigne Bara Khourédia moom Serigne moom Mamor Dior borom Sam Serigne bi tudd ko na yonent bi nee moo sàkk mu tuddee ko ko ba noppi mu tàggu bokki Mbacké yi ne damay waaj tukki <laughs> waaye tubaab bi moom ginnaaw ñoom not nit ñi ak defe na ku yëngu dooroo yëngal moo leen tax a jóg mhm. biñ joxee lettre sëñ Touba bii te sëñ bi jotul ci lettre bi mhm. loolu amaat na leneen lu mu jur mhm. loolu metti na leen ci ca sa damel sàmbalaw pedd waaye mettiwaat na leen ci sëñ Touba mi nga xam ne nii nee na woo nañ ko ñëw te te tegal ko ci ne ko même bu ñëwee sax du la faale loo wax du ko def waaye da ñëw te sëñ bi jotul lettre waaye du la wuy si du la wuy si boo ko bu la ah. wuy see booy wax ak moom du la faale du la faale loolu ay tuuma la yuñ teg sëñ Touba te loolu amut loolu amul xam nga mhm. waaye jëmmi sëñ bi ci boppam mhm. bi coow li baree mhm. ci bëgg jàmmam ba tey ak it xam ne li muy wut dana ko am mu bind leetar jox maam Cerno yónni ko xamal ko ne yow mi tudd am yire ndar leetar bi mi ngi bàyyi ko ci jaamu yàlla bi dul jaamu ku dul boroomam te du liggéeyal ku may rasulullah bul déglu fenkat yi ak rambaaj yi ak yàqkat yi bul ma jorte lu may jaam buy jaamu yàlla te di ko jaari ci sunna rasulullah li nga bëgg ci àdduna aw ma ci soxla li may wut ci yàlla mënoo ko baal naa la baal naa ku la ku la wër wa salaamu ala man itabihal huda xanaa boobu leetar am na lu mu jàngale wallaahi te fekk na fi ngay xame ne ko ñoom am na luñ nar mooy ki yónni ndaw te ndaw li bi mu ko yónni fekk na ñoom ñu takk seenu xare ba noppi nag kon ñoom am na leneen lu nekkoon ci seen xol loo xam ne mën lañ doon waajal ndax jëmmi sëñ bi ci boppam bi mu yónnee maam Thierno mu dem am na lu xew. Mhm. am na lu xew. Mhm. ndax borom deeru moom xamaloon na leen ne. Mhm. gisu fa fa ñëw di ko woo. kon bari na bataaxel yoo xam ne ak siwul waaye wóor na ma ne ku ko wooy dana ñëw. loolu engagement la. te noonu la demee. waaye ki nga xam ne yaa ngi koy convoqué. yónnee nga ko leetar nii woo jot na ko jotuma ko nga takku xare na na ko jëli. wut ay espèces yi. na nañ ko jëli. te programme bi ni nga koy xamee mooy ñii di gëstu xam nañ ne. 9 août 1895 di ajjuma. kan mujj a téye ca waalo lañ ko téye joxe décret 10 août 1895 di samedi nañ jëli Ahmadou Bamba Mbacké Bari. joxe ordre nag buñ ko fekkee Mbacké Bari nañ taal dëkk ba. rey dongo yi jàpp sëñ bi benn buy dund baa mu ñàkk ba kanam. pourtant bi lii di am li tax may wax ne sëñ Tuubaa mbiram dafa nuróog mbirum Rasulullah mhm. yonent bi. biñ ko kompaloo guddi gi ñu a digle na nañ dem fekk ko fa mu nekk faatandoo ko mhm. guddi googu la rasulullahi jot ndigalul gàddaaye Makka dem Madina kere biñ takkee seen xalaat yii ba jàpp ne lañ war a am mhm. ajjuma jee ca la sëñ Tuubaa jot ndigal lu ko ci rasulullahi mu ñëw na ko imsi wala tax sa wara ca mbakki bari man mhm. ngaa wàcce ñëw dem bu ragal lor yàlla aar na la kon moom it jot na décision jot ndigal pour war a jóg dem la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag bu amee ci ab diggante ñoom seen bopp luñ mën a nettali ak luñ mën a wax ak lu mu mën baax baax ak lu mu mën a neex neex mhm. am na ruq yooyu ñoo sëñ bi duñ ko nettali ñoom ndax enragé mhm. wu leen mhm. waaye ndokk bi ko sëñ bi waxee xam nga bi moom dafa waxal boppam lépp moo def histoire bi ba nopp bind ko te waxi sëñ bee gën a wér waxi képp boo xasee wax ay waxamee doon dëgg ndax moom moo ko def ba nopp te moo koy nettali li nga koy xamee mooy ñeenti fan di bis ni tey la waaj moo ko waxit moo ko bindit ci xarajtu yawma sabti rabia safar ama jaysasin fii bayti lati banaytuha fii ardi jolof baadama atat nii barawatu amiri ndari lati jara bay nii jara mi dal xadar dane gaaw kon gaaw ba rek la tàmbali wàcc moom xam na ne bu weeru safar bi teroo ci la natt bi am weer wi teroo rek moom mu tàmbali préparé mu takki bagage am defari xalawaatam ak defari bagage gaaw bii tey ci la sëñ Tuubaa tàmbali takk moo tax mu ne génn naa gaaw ñeenti fan ci weeru safar fii bayti li si banaytuha fii ardi jolof ca sama kër ga ma defar fa jolof muy mbàkki bari ginnaaw ba ma bataaxalub waa ndar ñëwee fekk si ma amiru ndar fekk si ma ci la dox sama digganteeg moom ci ay dogal moo waxal boppam it ne xare bañ takkoon mu jëm si mbakki bari di ma fekk si maa nga dajeeg ñoom ci béréb bu nuy wax jeewal ci yoor yoorub gaaw falaan nekk ba a dibeer ja loolu sëñ bi ko li boppam mm-hmm. ci téere bi ma wax mu ci saw Cheikh Quran tu mm-hmm. fi Latif mm-hmm. waaye léegi nag loolu am na sëñ Tuubaa yónnee na ndaw ni ngay xamee waajtaayam maam Cerno bi mu daataan ak sëñ Tuubaa tàggatoona ndax ajjuma ji gée ji sëñ Tuubaa mujj a julli Mbàkke Bari bu masaa julli fatu bi mu jullee gée daa toog ci buntu jàkka ci soxna fat jami dib taaw Cheikh Amadou Moustapha Cheikh Amadou Lamine Baara Cheikh Amadou Fadal Sidi Mouhamad soxna Marema ñëpp wër ko njaboot gi mais pencum Mbakke bari mi fees del nga xam ne bu ñu doon séddale reer dañuy wax ne dañuy tàmbali waxtu su timis bay julli gee fajar ngir mbooloo mu bari waaye téewul la mbooloo may bari bari ba mu càpp daayeg seen biir di waxtaan gars yu baax yi la doon wax seen i jaloore ku fi mas a jaar loo def ku fi jaar mas a jaar loo def waaye ba muy jeexal dana ñokket ajjuma ji lii la fa mujj wax daana sama borom dafa indi yan bopp ku ko mas na jakk rumbut say wóom yan boobu man ahmadu danaa ne ko dënkul ba ñëpp di ko seen sama borom dafay indi yan bopp ku ko mas na jàkk rumbul say wóom yan boobu danaa ne ko dënkul dem fàttu ji ndaw la mu yónni woon di borom daaru ku ne xam na ne bi mu jógee ci ci gouverneur général jaar na ci Leclerc pour expliquer ko ne bi dana ñëw ndax ñoom lañ yónni woon pour ñu dem jëli sëñ Tuubaa jot télégramme pour xaar sëñ Tuubaa Louga ndax jeewal campement la loolu tax sëñ bi dajee feek ñoom sëñ bi da ko bind Cheikh Ibrahima Diop almashari da ko bind sëñ Abdou Karim Touré da ko bind sëñ Mouhamed Moulay Bousso da ko bind borom xam-xam yi sëñ moom la muy Diop Dagana da ko bind te ku ci nekk sëñ bi la ko nettali waxal la boppam na mbir ma demee moom ci boppam it mu ko boppam maam Moussa Ka mii di wax wolof it te boole ko dégg arab di borom cërub yàlla it wax ko defe naa kon ay delluwaay la yu wóor a ba muy xaar kon moom moo doon xaar xam na ne doona jot maam Thierno ba mu jaaree ci Leclerc di leen wax ne sëñ bi dana ñëw tontu lu ñaaw la ko tontu lu gàtt xaw ma dana ñëw waaye xaw ma du ñëw waaye bu subaa nanga bu ñëwut boole ko jëli soldat di ko jal ci kawam ak di ko xoxatal mu di leen ree waaye teewul sëñ bi waaj na wàccaayu dëgër ndax bi maam Thierno ñëw fekk na sëñ bi bàggante di laajte ndax Ibrahima ak seegul fi ngay xamee ne sëñ bee dogu it mooy bi maam Thierno ak see rek di ko tàmbali nettali sëñ bee ko tapp-tappal na ko dig bi jot na kon lu ñu daalante woon la mm-hmm. bi jot na dig bi jot na dara mutuma nettali bul ma yàggal démb ca ngoon ba nga taxaweeg tubaab yeeg ceddo yi ca detti mbéerub janj ba xorandoom yi doon yëg ci tànk fas yu maa ngi jàkkaarloo ñoom yoral ma donga yeeg fa ma leen a yoral la rek daal di laaj lu naaru góoram woowu tudd xawnullahi ñu génneel ko bagaasam yeeg gaal gi penc mi tirim teg ca mbalaanum sooy teg ga dégal weex tal mel ni xaalis mu boole xaftaan yi ak jëllabi yi suur kaala ye mu takk ko ca xar kanam ga ba dara feeñatul lu mooy yéen yi bu ne gamm nga jàpp ne lépp xar karaw la bu ne la jàkkee jàpp lépp ay gët la jamaal jeeg jalaal ji di ko wër wet gu mu xam ne am na yitte ju ko tax a jóg mu bàyyi ay këram bàyyi ak njabootam waxit ne waxut ne damaa dem wujjee ab convocation sëñ bi wax ko fenn tubaab bi bu ne damaa convoqué sëñ Tuubaa wala arrêté naa ko waxul dëgg mmh li sëñ bi bi xarej ci wax génn naa waxut génnees na génn naa xarajtu yawma sabti saamina achar li xidmatil muxtaari fii chahri safar maa génn gaaw fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ngir liggéeyal rasulullah xarajtu yawma sabti saamina achar li xidmatil muxtaari fii chahri safar yaa man xamaani an muhaadin wa safar wa xaadali xuyuurahu minu safar yaa أهلي